maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di sant woon waa Caalaan Ñoojoor Falia Sow Basaar Basul képp kuy jàppale Reug rek maa ngi lay sant bu baax a baax di nuyu waa Mbele ngi tamit bu ma limee damay juum maa ngi lim ñëpp daal. waa Reug Reug ñu gis la combat bi bi mu taxawee ak léegi mat na trois ans nga topp guy gi ne ko pour mu may la chance nga topp guy gi ne ko war a daje topp nga ko fu guy gi nekk fekk nga xam nga ki nga jël ku ne nga jël xam nga xam nga ci nga jël xale yi xamante ni moom la ñoom la waaw guy gi champion la. nangul naa ko ak champion. mais xam nga mooy li may wax rek. Euh, nit ki bala ngeen a nit ki bala ngeen a laale maanam il faut ñu ñamante ba pare ngeen doog xam kan moo mën sa morom. mais daal man maa ngi ñaan yàlla si borom may ma ndam si barke Seydina Mohamed waaw. démb seetaan nga guy gi gis nga ni guy gi combat bi da ko jaral. Mhm. physiquement guy gi dafa taxaw. ngi lay nuyu. bi naka nga ko préparé parce que dañu gis ni physiquement tey da taxaw bi ci des mooy dañoo gis 100 pour 100 bi yëpp jaaree géej bi ñëpp génn kenn desul. Khadim Ndiaye gis nañ ko fi Issa Pouye Coly Faye numéro 2 et tant d'autres bés bee ko laaj wala lan. waaw ñooñu samay papa nañ su ma nee Khadim Ndiaye 1 Khadim Ndiaye 2 Ousmane Diop ah Issa Euh, ñun ñun ay lébu nañ te lébu dafa mën a sopp te ñoom suñ suñuy papa nañ suñuy lëb la tatagal nañ ñu def nañ def nañ daal lépp si ñun maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax ñoom conseil nañ ma quoi. waaw Reug Reug maa ngi lay nuyu maa lay fay gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi alayhi salaatu wa di leen gërëm yéen ñaari mbër mhm. di ñaan yàlla ngeen ko bëri si jàmm Reug Reug ñu gis ne caaroy géej mhm. parce que bu ñu waxee dañ ne rek rek bëre rek est-ce que ñeme nga taxaw ak guy gi ak moom bagaar ak moom te ñu bàyyi bëre parce que. non lamb moom lamb bëre dóor nañu wax mais ñun moom waaj nañ ànd ak suñuy mbokk dañuy ñaan ak yàlla suñu borom may ñu ndam mais li def def nañ ko waaw. mayel moo daan nee na dugg nga si cinq fois boo njëkkee woon. na seeti nanu guy gi. ne dugg nga foofu cinq fois waaye boo njëkkee woon ci moom. dootoo fa dugg. waaw moom dogalul yàlla suñu borom nag mooy dogal ah. yaa may dégg. mënoon na see bokk tamit terewul damay bëre cinq ñoom ndax yàlla suñu borom moo ko namm si man kon wax jooju amul lu mu ma si soog quoi. waaw Mhm. waaw comme moom guy gi moom moo fonk combat bi man mii xale na laa war a def bu ko fonkee dix fonk naa ko mille waaw waa Thiaré dañ maa yónni yàkkamti ma bu ñu demee nag ba si biir géew bi lu waay di wax rek nañ ko wax waaw. guy gi dafa guy gi nee na dafa pare pour corriger na du may benn xale muy jaar ci kawam di jàll. waaw guy gi mënu maa corriger. yaa may dégg yàlla bu namee dama koy daan ala kulli dama koy daan dégg ma mais moom du ma ba bés ba rek ba bés ba ba ba rek. ba bés ba rek tontu ba bés ba. waaw ñun moom luñ ciy tontu du bëri dañuy bàyyi ba bés ba rek waaw bés ba moom incha allah ku ko tardé di nga tardé du rëy bu fekkee moom ni muy waxee moom dëggal na ko incha allah combat bi du gaaw. mais boobu léegi gars du gaaw laa la wax du gaaw. gars yi ñu bu fekkee mën na maa tenir dafa nang bu fekkee moom mën na maa tenir combat bi day gaaw bu fekkee mënu maa tenir nag yaa ma gën a xam. ndox du bàyyi yoonam. gars non dañ sax fay fay ma. yaa may dégg mhm. man jëluma kii mag laa wala man ma war a sama bis mhm. sama kaar respecté. sama lu la expliqué man new ma fi naan kii mooy xale yaa war a dem no bu leeree rek ma dem bu leeree bu leerul ma taxaw ndax waa Caare dañ maa yónni yàkkamti ma. ci xeex bi. ci xeex bi xeex bi. dinañ demee taxaw jàkkaarloo ak kii bi. waaw sa papa ñu ne Khadim Ndiaye noonu. kooku boo namul xeex yow si yow la. la poussé ah. ma ne kuy sa papa ñu ne Khadim Ndiaye. kon ñun ay namuñu ay xeex. xeex fii la buujoo. ak Siteu Baba. ak Siteu Baba. combat bi fan nga ko préparé. combat bi fu ma ko préparé xanaa caaray laa ko préparé waaw caaray laa ko préparé ànd ak samay mbokk waaw. lan nga yóbbante guy gi yan kàddu ngay yóbbante guy gi. dama koy ñaanal jàmm ñaanal ka ak ay supporter am wér ba jour ba ñu ñëw ñu feesal stade del yàlla suñu borom may ma ndam ma dem sama yoon. non violence. waaw non violence. ñun moom ñun ay lébu nañ ñun moom xamuñu loolu waaw. waaw. moom laa la wax dañ kaa fay fay ma yi fay man moom lañ ma fay amul xale moo war a def si bis ba bis ba daal lu mu leer lu mu laaj ma def ko bu laajee taxaw ma taxaw bu laajee dox ko ma dox ko am du ma ko daan voilà waaw waaw li olof jaay di wax ku la jël si léegi lan ma lay wax nga toogee defe naa foofu laa bëri giri ah. waaw maa ngi koy maa wax mu ñëw waaw rek rek maa dañ ko non amul sens amul sens dañ ko fay fay ma yaa may dégg mayuma sens làmb moo ñu boole moom dégg nga ko si biir communiqué am danaan la kii boo ko jëlul ren boo ko jëlee day gën a métti fi mu jël nag moo gën a métti fuuf moo gën a bon ndax rërëb mi xam nga maa ngi wax benn kalam mais bàyyi woo si xel kalam bi naa ko indiwaat muy maanaam gis na uppa ñuy dem géej ñuy dem géej ñoo xam lool sama gars yi ah waa Thiaré ñoo xam loolu lan mooy uppa uppa uppa bu ndaw mooy xale bu ndaw bi as léegi pour déglu ma fii pour moom maanaam uppa bi lu mu def ba xëccu day xëccu nar a mag lu taxaw si kanamam rek da kay fekkaat parfois day am nar a mag noonu la mel maa guy parfois damay am nar a mag cey uppa dama ànd ak rek dama ànd ak waa Bantamba ñu ñëw fekk la fii caaray géej ñu ñëw fekk la caaray géej nga taal gax gaal bi yóbbu ñu ba ci biir géej gi teg ñu ci benn gaalu maare saxaar boobu dëgg rek rek nga soxla dëgg rek ne du bëri yow guy gi ne du bëri yow ñane ma bis bu ma guy gi jëlee dinaa ko tuuma dinaa ko daan mhm. mais wax boobu tey mhm. dafa mel ni dañ ciy génn ndax ba bëri ñu la koy laaj ne na nga woo ca wax. du ma si génn ndax man man ne lébu laa du ma wax di si tëll ginnaaw. waaw waaw bu fekkee mën na ma tenir laa la wax dina neex dina yëngu xaw ma nag ma dóor mu sàngooy loxo ñëw songo ma ah, waaw leer na tontu naa la ah. voilà.